salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan MK TV ak plateforme yu mu am yëpp ñu ngi leen di nuyu. Euh, xam ngeen nag tàmbali màggal gi ba léegi ñu woon ci ay reportage yoo xam ne da doon jëmmal liggéey bi nga xam ne moom la muxaddamatul ma am ci biir màggal gi ci jumaa ji. ak ci li war penc mi waaye nag ci biir kër sëñ Touba ndax xam ngeen bokk na ci li ñu ko ak accueil hébergement délégation religieuse yi nga xam ne ñoo jóge ci kër diine yi ñëw ci biir màggal gi te ñu logé leen fii ci kër sëñ Touba gi ci Touba mosquée ak gi nekk Darul Manaan euh, gannaaw bi ñu leen dalalee toppatoo leen ànd ak ñoom ci màggal gi tey nag ñi ngi ci njeexitalu màggal gi muy cérémonie officielle bi nga xam ne mooy tëj activité màggal gi ñoom ñëpp euh, jëli nañ leen indi leen ci base cérémonie bi ba installé leen di xaar euh, sëriñ bi ñëw ak délégation officielle bi nga xam ne ministre de l'Intérieur moo koy jiite pour ñu mën a ñëw nag ñëw ci euh, kii bi waaye loolu lépp euh, commission accueil hébergement ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy saytu ni ñu saytoo woon dal yi ni ñu saytoo di leen toppatoo ni ñu saytoo di ànd ak ñoom di dem ci ziyaar yeeg conférence yi ni ñu saytoo di leen yóbbu ci kër sëriñ bi ñuy ziyaar ni ñu saytoo ba sëriñ Bass mi nga xamante ni mooy président comité d'organisation yor kàddu sëriñ bi ñëw saafoonte ak ñoom euh, masla ak ñoom noonu itam lañ ànd ak ñoom ba ñëw ci cérémonie officielle bi nga xamante ni mooy tëj màggal gi ñu war a ñu war a nag euh, euh, ànd ak ñoom bu ñu paree doog la ni gunge ñu dem gisanteeg Cheikh Mouhamadul Mountakha saafoonteeg moom ba ba bala ñuy yeewee ko kon man mel na ne liggéey bi noonu la demee euh, Moukhaddamatoul ma nag ak commission accueil bi nga xam ne moom moom la yor li mu yor ci ay membre nga xam ne mat na fanweer ak juróom diggante ñaari kër sëñ Touba yi ñoom ñi ngi fi ci cérémonie officielle bi ñoo nekk ci mbedd di giide kilifa yi diine yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi nu ñu def ba mën a accès waaye itam kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ dale itam nu ñu def mën a mën a accès ci biir ci biir baas bi loolu daal ci tënk mooy liggéey bi nga xam ne ñi ngi ci ñi ngi ci njeexital yi waaye dañ leen dig ci kanam tuuti bu cérémonie bi jeexee ni ñuy def nag ba def benn synthèse boo xam ne li ñu liggéey lépp dañu ñu ko tënk indi ko ci MK TV ngir mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi man cee jot incha allah